président waat bi mu waree daanu mouvement yi bi ñuy taxaw di taxawal M23 ay mouvement Y'en a marre et cetera nit ñi dañoo jàppoon na ay caaxaan la ñu def kon mouvement na dem bii nii aujourd'hui dinañ jàpp ne ay caaxaan la waaye di ci kanam rawuli bët président Macky nag dañoo am ak moom règlement de compte ñun waa Touba du ñu làqatu parce que lan lañ am ak moom règlement de compte mooy lu mel ne tey mu def remaniement ministériel suñu département ak ni mu toll ci Sénégal amuñu ministre lan moo ko waral voté luñ ko législatif muy fayantoo ak ñun comme nag mbir mi njoos njoccet la suñu àggaatee ci bis bi ñun ñoo njëkk njoos mun ne ñu njoccet danañ ko njoos sax te duna njoccet incha allah en fait dañu nekk ci boo xam ne aujourd'hui mooy deuxième ville économique du Sénégal muy département wu Diourbel nekk département boo xam ne mooy deuxième ville popularité du Sénégal président Macky Sall donte ñun suñ ko voteelul am na ay apéris nekk yu ko faral sonn ci moom guddeeg bëccëg suba ngoon te dafay li nekk normal li nga xam ne moo war a nekk yoon mooy dañu war a am ministre comme ni ko département yëpp amee am ku ñu représenté ci parlement yi comme ni ko département yëpp amee mais malheureusement suñu député yi ñoom dañuy taxaw assemblée nationale sax di wax naan man député Macky Sall la wala député nangam la et cetera après ma wax leen ban nouvelle Sénégal la am bu Macky Sall perte bu ngeen gisee réew yi nga xam ne dañoo am avancement yëpp bi ñu commencé di fal benn mandat ndax Macky Sall ki koy wuutuwaat 2019 incha allah kooku dina xam ne bilan moo koy fal 2024 wala day wàcc sénégalais yi dañu commencé yeewu ci vote yeewu ci leneen. deuxième mandat wu Macky Sall lan moo tax ñun waa Touba waruñu ko seetaan xam ngeen ne Touba bari na ay privilèges yu fi nekk yoo xam ne président Macky Sall su ko mënoon a dindi tey tey dana a jublu na ci. waaye daa dem ba ci biir moo xam ne soxla na deuxième mandat muy maslaa ak ñun bi muy doog a toog ngeen ko dégg mu wax ne ñëpp ay citoyen ordinaire lañu loolu doyul Touba statut spécial bi nga xam ne monsieur président Abdoulaye waxoon na dina ko ko def ba fii ñuy wax ak kenn defu ko Touba état continuité la aéroport bi nga xam ne Abdoulaye Wade commencé woon na ko fi ba tey jii ab birig yokkaatu ci te tey tabax na aéroport bu boo xam ne bokk na ci gën a moderne ci àdduna muy AIBD kon Touba soxla na lu tey Touba tey li gën a ñaaw muy ay égout ay kubéer yoo xam ne dañ koy jël di ko tëj ci ay canalisation ñu bind ci modernisation ville de Touba Sénégal muy commande tey fan lañ ko implanté ci mairie Aliou Sall ak mairie Thiembo muy Pikine ak Guédiawaye Djeddah Thiaroye Kaw ak Médina Gounass bu ngeen fa demee tey égout yi dañ fa implanté ci seen euh, assainissement Touba moo ko moom ñu jël ko implanté ko foofu loolu mooy wane ne ñoom faalewuñu Touba yëguñu Touba waaye nañ xam ne Touba faalewu leen yëgu leen ñun nag ñun nag ma daaneel yaakaaruñ ku dul sëñ Touba gis ngeen ñun état lim ñu defal mën nañ koo wàññi. hôpital bii fi nekk di ndaamaatu Cheikh Abdoul Ahad moo ko fi def hôpital Matlaboul Fawzeyni taalibi sëñ Touba yi nekk euh, Afrique du Sud ñoo ko fi def. hôpital 28 Serigne Sali moo ko fi def hôpital Jéemu Serigne Sali moo ko fi def hôpital Daaru Manaan Serigne Sali moo bii jëm diggante Touba ak Mbacké fi la ko Cheikh Ahad bàyyi ñun nam ñu dara état lu mu yor na ko téye ñun sëñ lañ gëm ñu bëgg la ku bëgg Sëñ Tuubaa bëgg ñu la président Macky Sall nag dina xam ne ñun ak moom la ñun waa Touba. ci élection législative yi sëñ Mbacke mii moo may def moo may dalal émission ci Mouride Info mu laaj ma ne ma choix bi mu def ci sëñ Cheikh Abdou Bali ma ne ko baaxul lu choix bu baax booba sax office euh, maanaam kenn yëngu ko dañ ko doon waaj parce que ñun kenn mënatuñoo nax nax yi dafa doy. Abdoulaye Wade nag li taxoon ñu bëgg ko ñun mooy taalibe bi Sëñ Tuubaa la xaqiiqatan koo xam ne nag kenn xamul foo far kenn xamul foo bokk kenn xamul kuy sab sëriñ ba pare nga bëgg ñoo yàpp bëgg ñoo fondoor duñu ko def léegi nag dégg nañ damay daaneel dégg nañ ministre de l'intérieur wax lu leer nañ ci élection yi ñu jëm nee na ku far ak Macky Sall dina fexe nga dem déposé boo déposé na fexe nga jot sa carte d'identité boo jotee sa carte d'identité dina fexe nga voté le reste yoonam nekku ci kon en tant que nan lañ ko war a faje mooy dem leen ngeen jëli seen carte d'identité yi élection législative yi nag li fi amoon du fi amaat bakkan lay laaj suñu urne yi ñu tasaare ko yàq vote yi Touba Touba wane ne ay citoyen ñoo fi dëkk te dañoo soxla suñu wàllu ci réew te seen mel ne Assane Mbacké seen mel ne Moustapha Diouf Lambaye seen mel ne Abdou Diakhaté Saliou aujourd'hui dañu a dañu war a dem assemblée nationale